ci daral kër kabu bu tuba samkat yi ci ñakare bu rëy ak jaaxle la ñuy nettalee ni nga xamante ni noonu la ñuy seen seeni jur jamono ji ren joytu bi yàgg na lool ndax ren ñax amul fenn ba tax na képp ku mën a doon yaa ci jaay sa alal di jënd sa xont ñu ngi jënd repas di jënd ngooñ di jënd bopp dem nañ ba bopp bi fi jeex na ci sénégal lépp mi ngi des rek côté saalum te côté saalum bi fii jotewuñ fa jur gi nekk fii joteetuñ fa. commune Touba bii moom sàmm yi moom sonn nañ lool lool lool lool nag yi nga xam ne sax kenn defu leen ci biir dara bi dañoo nekk ci ci kër yi di wëtt ay perméable rek lañ dunde jur gi xiif na sonn nañu. bés bu set nag dinañu def seen këmtalaay kattan ngir rek mën a mottal xont bi ci seen jur yi waaye suñu sukkandikoo ci Moustapha Mbeng ci ay anam yu métti lañu koy defee. noo ngi sonn guddi ak bëccëg di jënd ay sas dix-sept mille vingt mille vingt-cinq mille loolu ko bëgg a xontee jur boole ko jënd ripaas ba mu taw loolu lu métti la. ndax am sax de ñoom amoon nañu benn ndimbal bu jógee ko ci nguur gi waaye kilifa daral bi dafa ñuy xamal ne ndimbal boobu motul sax xaaju jur yi nga xamante ni ñoo ngi ci bërëb bi. nun de fukki saako ak juróom-ñaar lañ ci am nun ci daral bi maa ko fi indi séddale ko daral gii diggante xar yeeg nay ak bëy ak fas yeeg mbaam mi fukki saako juróom-ñaar. loolu moo fi ñëwagun lu jóge lu jóge ci gouvernement bi ñëw fii. junni bërigo ak juróom-ñaari téeméer doyunu waaye liñ liñ ñu jox rek lan ci lan jàpp. ngir nag ñu saafaraal jafe-jafe yooyu nga xamante ni ñoo ngi ko nekki sàmmkat yi dañuy xelal ay pexe. suñu mu ne am suñu ndimbal léegi lañ ko bëgg am waaye bay benn nawet nga siif ay saag kenn ku ne bu naagam suuree dootu jënd ripaas boo déggee ripaas na indil fa borom kii fee. gouvernement war nañ cee taxaw lu moom kem kat li jaalu ci dara gi ay tonnage yu bari lañuy war a jox ak ñeneen ñu mel ni ñun ndax du ñun doo nga bëgg. ci biir daral kër Kabo bu tuubaa nekkul ne rek ko xont jur yi moom moo soxal sàmmkat yi waaye itam bëgg nañ ku leen fa defal li nga xamante ni moom mooy leeral bërëb bi waaye itam kaaraange bu sax dakk